ci ndoxteelu atum 2021 bi doomu adama yi am si tiitaange ak njàqare ngir faatu yu tegloo loolee waral Cheikh Abdou baaxum mu yore saytu ko armeel yi di Baqiya indi ay leeral di xamle ne lim bi daan am par mu di fanweer ak juróom jàpp ñeent fukk ak juróom ci ay doomu aadama bañ daan faral di denc par bés ba léegi dara soppeekuwu ca. depuis janvier 2014 ba ñu ne daal euh, mën naa ni la quatre vingt di mille et quelques personnes mënuñoo tëb tëb jox la taux bépp waaye daal dama bëgg nga bàyyi xel ni quatre-vingt-dix mille yi moom mat na ndax li mu matee mooy Sëriñ Tuubaa la mu waxoon dañuy malaka ni dunya waxra samadu daa feeñ ci barab yii sëñ Tuubaa ci boppam daa da waxoon na ni yaa ahlal bari yaa ahlal bari hujulil bahri bahri saqaay ba mu ko wootee tamit wuy si nañ ko kon ñi faatu duñuy wuy si ndax fii la tax ñëw fi yaakaar tax ñu ñëw fi dëgg la rob yi bari na nit ñi di coow waaye sëriñ bi ci boppam yàlla dogal na ñi matal la yàlla woo ñuy ñibbi si bàqana gi trente personnes trente trente cinq quarante quarante cinq waaye fii jamono ji toll noonu la demee te maanaam boo ko dee xool bu fekkoon téeméeri nit a xëy di faatu di murit juróom-ñeent fukki bàyyil xel ni Touba leen jëm te Touba armée li Touba yaatu na. na nag mooy mooy mooy kilifa ak armeel it mooy mooy mooy tu armeel yu mag yi waaye Gédé ak Daaru Muxti Daaru Salaam a ngi fi ak euh, Mbàkke gi ci mbusoo bi kon ñu bàyyi xel loolu waaye moom daal nan bàyyi xel ni daal yàlla daal mooy di ko ko dogalam fii ñu doon tar na li li muy tar tar nan ko bàyyi xel te xam ni ñu ñi di wax ak yéen xamuñu suñ kàddu dina mat ñu toogaat fi nekk nii ci suba wala déet ndax lu mu bari bari bari daal nan bàyyi xel ni ñoo ñu dem gënuñu gënuñu gënuñu leen ñu ñu fi des li mat a bàyyi xel daal mooy nan xam ni danoo judd ca ku judd da nga faatu ndax léegi may wax nii rek gone gu toll ci eh, une semaine ma nga noonee wàcc ca waajuróom yi amoon na yaakaar ci ne dina dund ba yor ko ca gis nga ni yàlla dikkee ko doon nan sax ci li yàlla bëgg rek ay yonent bi Sëñ Tuubaa bu yàlla dikkee ñoo xam ni yàlla dikkee dama ni daan nañ ko am daan nan am 30 35 40 gën gaa gën gaa bëri 45 waaye li nit ñi coow naan 70 personnes 70 mosu fi am man laay ngaa ngi si 70 personnes mosu fi am de coow lay nit ñi coow naan 70 mosu fi am nag laa wax loolu bu fi amee ñu bàyyi xel ni euh, ñu man mi di wax ak yéen sax kon boobaa danaa jàpp ne xanaa dama kon maa ngi ci yoon ba kon. bokk na si ay jafe-jafe yi ñuy faral di la ak ci bërëb boobule at di Bakhiya mu di Touba dafa nekk dëkk boo xamante ne nii dëkkub sañ-sañ la. jafe-jafe yi moom leen la rek muy sañ-sañ dikk ni tey naa def nii waaye nag lu waaye bari bari sañ-sañ boo dikkee fi ba gis nii fi tëdd bu sa bu fekkee dara daraa ngi ci yow da nga teggi sab sañ-sañ teg nee ba delluwaat fu nga jógoon waaye li ngay ñëw soo dikkee. war a mën a jaar fii ndax kii di Cheikh Mouhamadul Mountakha nekkal fi Serigne Touba ndawam di saa su fii ñëw ci ndigalu sëñ bi daf fiy ñëw ci man lu ma jàpp dama koy bàyyi defal ko li mu bëgg ndax ndagam sàkkam moom mooy def loolu ñu ci des ñëpp dana war a góorgóorlu jàppale ñu ci képp ku fi mën di ñëw ak koo mën di doon ak foo mën di bàyyi ko nga ñëw jaar fii ci bureau ndax bureau bi ni niñ ko fi tegee tegewuñ fi tegewuñ fi ngir iñaan ngir leen dañu fee teg ngir saytu saytu gi passé li fiy ñëw ñu xam ni mu fi ñëwee ak fu mu dëkk ak eh, ak fu mu ko war a denc lool rek la demee ne eh, ci wàllum sécurité tamit ñi ngi ciy amal ay jéego ngir defkatu ñaawteef yi bañ a am accès ci way dawlu yi. fii moom li ma la waxoon léegi rek ñun saa si lan yor waaye bàttin bi sëriñ bi moo ko yoral boppam lépp lu fi waaye def li fi defagul lépp nee na fang ni bëccëg bu ndara kam ndax li ma li ci njëkk a njëkk nañ fii ñëw doon fi doon fi luubal lu demee kii mbàjj ak euh, bolon yi bolon yi ci armion yi li ma lay wax nii lu wér la kenn ki ñoo bokk koñ man ak moom yàlla dogal na man bi ñu ko jàppee la ma waxoon dama ne ko ba mu yegsee bu yul woon dara sax ma ñaanal ko intervention waaye nag la mu yor ma bëgg ñu teg ko ci yoon teg nañ ko ci yoon ba yoon def nag liggéeyam ba alhamdulilah rabbil ki ci des moo ñëwal boppam leen naan ku dee ci marché yaa tàgge suba moo ñëwul boppam dénoncé bi mu dénoncé ñu toog duuti dans dix minutes rek benn gendarme jàpp ko bi mu ko jàppee woote brigade brigade ni ma demal xool commandant bi ni ma xoolal ba xam ndax ko danoo jàpp ko bokk ci yéen ma ne ko déedéet ma ñëw mu fekk ku fi ñëw di fréquenté li ci fii moom man maa nagu lieu de fréquentation fii ñi fi liggéeyee képp ak ñi fi ñëw di gu si néew ku ma ci gis nga yow nga doon ko jubadi dama naan la delluwaatal fu nga jógoon fii moom boo ku fi ñëw di lubal lubal moom na ma meloon démb laa melte ndax man xam naa ku xam xam mooy xam naa ni moom ku jubadi ku ku jubadi ku ne booy seet ci man di nga jub wala boo jubul moom gisee na leen fii daal moom lool noonu mbir la loolu moom am nañ ko amati ko waaye yàlla mi dara tawul Serigne nital na ko boppam ba kenn ki ci mujj am nii. dañ ko gunge dañuy sant gendarmerie foofu gunge na leen ban yéeg autoroute bi nga xam ne amatul retour ñu dellowaat ko fa jóge woon euh, ki ci des moom yàlla daa dogal bi ñu ñëwee tamit ba ñu ñu wax ko ay bokkam mbokk yi ñoom miimuñu danoo daal di départ ak moom dem waaye fii moom ñu fi dugg ñëpp. duggee nañ fi duggee nu leer naññ naññ nañ loolu moom bokk na ci li nga xam ne moom am na fii. ci wàllum aset gi tamit ñi ngi ciy def seen kéem kàttan ba di ko sàmm ngir xeex bi ñuy xeex mbas mi lëmbe mim réew di Covid 19. fii ñu toll man lii ñuy wax ñuy wax ni xew na man laataa mu xew dama sukkandiku ci li diine wax ne am na saafatul mu ne iman set bokk na ci ngëm yàlla. ñi fi liggéey dama leen daan sant ni leen da ngeen di raxasu ba set adduna yëpp xam na ni man loolu dama ko daan ku ci raxasul doo sukk ci lii si ñu jëfandikoo doo sequma ak yow lenn ndax kuy nekk di lii ci ko faatu da ngaa war a seet picc yow mu koy setal madaar beeg eau de javel beeg percal bi yëpp lu ma ci waay jox dinaa la ko nangul su ma ko nangulee dinaa la ko defal ci ñu faatu li ci des nga bàyyeeg sunu borom man moom loolu laa xam te loolu laay noonu noonu laay noonu laa gëm. wax ji bari lool jamono ji ci faatu gi ba ñu bari tiit lool waaye liñ mëna jàpp rek moo di lim bi mësul yokku te li ñu war a def rek moo di delloowaat suñu xel ci yàlla te gëna gën a faratalaat suñu jaamu yàlla ngir xam ne faatu day bette